duur bu fees dell ak ndoxum taw yàgg fi lool xeet gi fiy gilli jéggi dayoo salte gi foo ko takk weesu na ko ay salle de classe yu ràpp ay table bon yu yàqu ay bunt yu daanu ay fenêtre yu màgget lool li lépp lenn ci jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ nemmeeku ci école Amadou Tanor Dieng ak 2 nekkee ci quartier Tabangoy bu Kaolack. école bi nag jamono ji di dundu situation bu métti lool. Eh, école lu ñu waroon defar la avant avant avant nagani avant avant tey war lañu leen waroon def lépp parce que dafa nekk loo xamante ne bii suñu doom ñoo fi jàngi ñi fi jàng itam seen i ñoo fi nekk ba tey di fi jàng dafa jël temps euh, dafa dafa dafa génn ñu bari ñooñu nag war nañ ci mën a taxaw te comme ñooñu ñu ngi taxaw seen doom ñoo fi nekk tamit lii moom lii ma jëmul kër moom fii kenn mënu fi jànge kenn mënu fi dugg fii sax seulement dañoo xaw a am lu ñuy kii tuuti mais normalement kenn mu fi bàyyi sa mu fi dugg di fi jànge mais da ngay xool lii rek xoolal xelal tan école Tanor Dieng ni mel xool ko xoolal fii nii nga dugg ci biir classe yi yëpp a bon dara baaxu ci te am ay autorités yi dëkk Kaolack fii nii mais ñu ngi leen di lancer appel nañ ñu ñëw jàppale ñu ñu dimbale ñu ñu defal parce que ñun amuñu lu dul tabangoy ñuy wax affaire corona corona mais lii moo raw corona lii moo raw corona fi mu toll bunt yëpp dajjeeku nañ bunt yëpp a dajjeeku planète yëpp a dajjeeku xoolal salle de classe yëpp a dajjeeku booy dañuy nekk ay jàmbaar sax moo tax ñu ñëw di defal lii nii te ñëpp boo leen xoolee ay gone yu ndaw leen ñëpp ci koñ bi leen dëkk. boo jëlee école bi dafa màgget fi mu toll nii trop sax te bañ ko fi defee yàggut mais entretien yi la école bi manqué ak euh, nawet bi dégâts yi nga xam ne def na ko gis ngeen dégg bi nga xam ne moo nekk ci digg école bi lu lu dangereux la te situation bi bu continué da ngay gis reptilier te xale yi mën ñoo attraper malade bu nekk. ni nga xam ne noonu la école bi feesee ak ndox at mu jot bu école di tijji nii lay mel te kilifa yi duñ ci jéem dara. nii lañ fi daan bàyyee ndox mi ba muus. am na ci yenn kilifa yu daan jëf ci école bi daan leen jàppale waaye jëf jooju dafa néew lool. ci li nga xam ne moo mën a saafara jafe-jafe école bi askan wi dëkkee ci quartier bi di ñaawlu ñàkk taxawaayu kilifa yi nekkee ci dëkk bi rawatina maire bi di Mariama Sarr. maire bi na dikk def euh, def ci dooleem du ñun ñoo koy ñun ñoo ko war a def comme nañu volonté wu nañ dikk di ko defar na dikk du ko ci loxo gën ñoo jàppale quoi amuñu peel yi amuñu kii yow yow fàllu yàlla jëndi euh, bale man mii maa abbi ay peel dafa am loo xamante ne bii aussi ni ñu ko war a rus daal ñoo waroon dikk lii lépp liggéeyu maire la mais su fekkee tey léegi ñun jug na ba xool ba xam ne lii mu teg ñu di ko defar suñu bopp lu ci mën nañ ci jàpp parce que xam ne lii moom lii ma jëmul kër moom fii kenn mënu fi jànge mais ana parents d'élèves yi ana ana ana ana ana ana ñu dëkk ci koñ bi ana autorités yi nekk Kaolack ana maire ana conseil départemental ana homme politique yi nekk yi nga xam ne ñoo nekk biir Kaolack di seetaan lii nii tey jii nii ku sa doom dugg feebar dañ la koy bàyyee mais nañ ñu jàppale ñu defar école Tanor Dieng bi yéen fi ngeen jànge xale yu ndaw yi ñu ngi gis fi génn wàll yëpp fi leen jànge mais nag bu ñu seetaanee lii nii vraiment dina dina dina dina dina yokk leen quoi. sollicitation boobu nag ci autorité administrative yi ak municipal yi la tàmbalee parce que lii ñoom ñoo ci waroon jiitu. mais comme que boo doon ab citoyen li ñu tuddee acte citoyen nag da nga ko jéem a def di alerte mais aussi de poser ay actions moo tax bi ñu alerter alerter waat amuñu réponse positive ci lañ ñëw commencé def ñu li nga xam ne fa la suñu doole toll li ci njëkk nag mooy. maanaam fexe bale classe yi. ñàkk taxawaayu kilifa yooyu sabab ñenn ci ay anciens élèves école Amadou Tanor Dieng bi ànd ak association yi nekkee ci quartier bi ñëwoon doon seetal école bi ngir jàppale gone yi ñu mën a ubbi. moo doon ñëw tey bale classe yi euh, désinfecté euh, fexe ut benn raccourci boo xam ne ndox mi dana mën a jàll. mais loolu sont des solution yu provisoire yu provisoire sax te loolu mënul dara instant bi ci école bi fii képp koo xam ne bëgg nga xale wala am nga doom soo xoolee école bi sa yaram war naa daw donc ñun ñi nga xamante ne bii ñoo dëkk ci quartier bi CGE bi parents d'élèves yi ak association des euh, des anciens élèves. liñ ci mën mooy solution provisoire bi fii ak ouverture bi xale yi au moins seen xel xaw dal parents yi seen xel xaw a dal ñu ñemee ubbi. ki nga xam ne mooy coordonnateur bu PAMA di Amadou Diallo yabal fi délégation ñu amal waxtaan ak kilifa yi ngànk l'école bi ñoom nag jël nañ fa engagement nee ñu daañu jàppale école Amadou Tanor Dieng bi. ak kàddu ministre euh, de la fonction publique et maire de Kaolack madame Mariama Sarr. mu nañu woon nañ ñëw xool si situation bi fii nan la demee ak ñoom tamit nan lañ ci mun a taxawee taxaw d'abord dans l'urgence pour appuyer toutes les autorités euh, euh, à faire en sorte que école rentrée bi daañu mën a nekk ci anam yoo xam ne yii nii ñun xel mën a nangu la su loolu jàllee ñun ñëpp ñu toog ñu xool lan ak structure bi ngeen am muy euh, les anciens élèves de l' ñoom nga yéen ñi nga xam ne organisé wu ngeen di organiser jour bu mel nii ñu xool nan lañ mën a taxawee pour jàppale leen ba nga xam ni bii nii situation bii école bi di dund at mu nekk daan ci jéem a am ay solution école Amadou Tanor Dieng bi bëri na ay kilifa yu fi yàgg ñëw daan fi diggee waaye duñ ci def dara. parce que du koy defal du ay waxi kese du ay politique bu ay def leneen. li nga xam ne mooy saafara gi gën ci école bi mooy. mais solution bi nga xamante ne bi ne mooy solution définitive bi mooy li nga xam ne ñun moom la ñu moom la bëgg mooy ñu daanewaat école bi defar ko ba nga xamante ne bii dana doon école moderne mucc ayib nga xam ne conseil bi ñuy wax naan ubbi tey jàng tey dana ci mën a bokk situation bi école Amadou Tanor Dieng 1 ak 2 mel jéggi na dayoo te kilifa yi waruñ koy seetaan benn yoon ndax ay gone yu ndaw ñoo fiy jàngee ubbi tey jàng tey mënu faa am benn yoon jàppale école bi nag war na ku ne waaye gone yi kenn jiituwu leen ci